label Subatel Music ñi ngay bëgg a ñàkk seen kàngam yi gën a foor ci ñoom ginnaaw Bambaly Seck mi nga xam ne jot naa quitté label Subatel Music Bambaly ki nga xam ne moom moo di Ibra Nadio Ibra Nadio génn na label Subatel Music bàyyi na Matar Diop Subatel li nga xam ne moo leen jotale ba kii ba kenn ku ci nekk fantaséroog sa morom jaar ci sa yoonu bopp loolee ba tey kenn xamel su lu mu doon waaye daal ak lu ci mën a xew itam yi nga xam ne moom lay faral di tëgg par dimanche soirée yooyu le saa buy masaane def affiche bi dafay daal di def Subatel Music présente waaye label boobu le mujj koo bind ci affiche am bi nga xam ne moom la mujjee génne loolee moo di tax gars di lu ñutu ak a a gëstu di xool ana lan moo tax Ibra Nadio bindul boobu lépp label ci li nga xam ne moo di affiche am bi mujj bi lee loolee gars yi ñu ngi creuser ko gëstu ak di jéem xool ana lan moo leen jotale ana lan moo leen indil benn problème boo xam ne tax na Ibra Nadio bëgg génn ci ki nga xam ne moo di Matar Diop Subatel bàyyi ko ak label Subatel Music ki bàyyi Sénégal di ko tàgg ka moo di président Macky Sall toxu bébé chanteuse moo fi wooyoon président président Macky Sall ñu ngi lay woo kor Marème Faye Sall wayaat na ko beneen façon way goo ne mu ngi xamal ni ko ana kan moo la digal bi la digal ana kan moo la wax nga bàyyi suñu réew yow président Macky Sall demee kan moo yor suñu réew président Macky doo ñoom te ñoom duñu yow yaa leen fuuf te itam yaa gën a gore moom soxu bébé tagg na bàkk na kañ na président Macky Sall xamal ko ne ko nag réewum Sénégal bu ñu sañoon li nga fi liggéey amul benn président boo xam ne jot na ko fay def ci li weesu te itam ñi mën na cee def li nga ci def moom soxu bébé aj ajal na président Macky Sall ba noppi itam xamal ko ne ko réew mi ñàkk na koo xam ne dootu ko amaat réew mi wan nga ko ginnaaw waaye amul kenn ku mel ni yow koo xam ne mën na fee ñëw jëf fi jëf juré ji nga fi jote jëf ki jëf jëf yi mooy ki jënd albumu Baye Mass dix millions fukki millions la daal di yëkkati jëndee ko albumu Baye Mass Baye Mass artiste bi nga xam ne gannaaw vingt quatre heures bi ma annoncé ne dafay génne albumam benn homme d'affaires moo daal di jékki-jékki yëkkati fukki millions jënd ci benn exemplaire muy lu mës xew fii ci Sénégal première fois nit jënd ab album lu toll ci fukki million album bi ki ko fukki million mu ngi tudd Al Amin Sarr Al Amin Sarr moomulee moo daada mooy fondateur u IDK compagnie Al Amin Sarr moomee ci boppam moo yëkkati fukki tam daret wolof moo koy tuddee noonu le tubaab di ko wax dix millions ko def ko ci benn exemplaire u albumu Baye Mass mi nga xam ne jamono jile mooy bëgg a génn bëgg a toj dëkk bi ki nga xam ne moom moo di Malick Thiandoum moom daal dinay wax ak Ousmane ma ca TFM Ousmane Sonko nee na Malick ki nga xam ne moo di président Macky Sall gannaaw bu mu génnee waxaat na ci jam ñaar ne du nangu kenn koo xam ne da ngay salfaañe jàmm ji am fii ci Sénégal nee na président Macky Sall li mu def bàyyi fi troisième candidature am bile loolee dafa bëgg suuxat jàmm fii ci Sénégal waaye nag usman Sonko ñëpp xam nañu ne ñu ngi koy tooñ lu bare bare ci wàllu justice Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne ñu ngi koy xoqatal ak di ko jaay doole waaye nag génnam gu mu jigile wax na lu ëpp loo xam ne waru koo wax ndaxte moom Ousmane Sonko su fekkente nii dafa bëgg a jiite Sénégal bëgg koo tabax fa bëgg fee inauguré lu baree bari su boobaa nag dafa war a xoolaat boppam bu baax warta woo kenn ngir ñu taal dëkk bi warta woo kenn ngir ñu yëkkati fi na su usman Sonko ne bis bu ma bokkul ci élection yi li ñu tuddee chaos indescriptible dana am fii ci Sénégal nee na loolee dafa ëpp Ousmane Sonko xaabaabal na nag loole waru koo wax en tant que leader politique boo xam ne yaa ngi fii ci Sénégal bëgg jiite Sénégal en tant que leader politique boo xam ne dangaa am say responsabilité te xam say responsabilité war koo jëfandikoo ci kaw askanu Sénégal nee na Ousmane Sonko deltu ginnaaw ci kàddoom googule su ma bokkul ci élection yi élection du fi am su bokkul ci élection yi réew mi dana dugg ci guuta suma ma bokkul ci élection yi fitna dana yeewu fii ci senegal Sénégal Malick Thiandoum nee na Ousmane Sonko delluwaatal ginnaaw kàddu googee nga wax duñu ci ànd ak yow donte ni sax justice mu ngi lay tooñ donte ni sax justice dëkk naa jëf ci yow jëf joo xam ne du lu rafet ki def lu rafet jëmale ko ci ma Matar Gueye jam moom moo di délégué Amar moo du délégué Amar rakk ci Cheikh Amar moom muy ànd ak Wali Ballago Seck moo du délégué Amar dafa daal di yëkkati téléphone ci émission soo mu ngi ko doon amal daal di woo Mame ko ne ko nag dinaa sàkku ci Wally Ballago Seck mu yëkkati benn woota daal la koy jox yow Mame Makhtar Gueye Jamra ngir nga am looy mën di di ci doxee say soxla muy geste boo xam ne geste bu rafet la ñu bari jàppoon ne Modou délégué Amar mënul lu dul di dal ci seen kaw saa bu ñu dalee ci kaw Wally Ballago Seck mu yekk leen musiba ak mbelengaan tontu leen tontu yi saf-sàpp rij leen ci seen place waaye bi yoon Modou délégué Amar dafa jëf feneen façon jëfin boo xam ne mu ngi firndeel ni moom itam nit ku nite la mu ngi firndeel ni nit na koo xam ne ku mën a maslaxa la mu ngi firndeel na koo xam ne ginnaaw ay jàmm te itamit nag lépp loo xam ne luy suuxat jàmm la daf kiy dox moom Modou délégué Amath wan na ko sénégalais yi woo téléphone Mame Matar Gueye Jamra waxtaan ak moom ci njëkk ak nga xamal ko ne ko yow suñu bàyyi nga suñu kilifa nga suñu wëllëre nga kon nag dañu laa war a jox cër dañu laa war a jàppale ci xeex bi nga xam ne moom ngay xeex xeex bi ngay xeex ñëpp ànd nañ ci ak yaw waaye tamit nag ñëpp naa dinañ la gongo ci sa liggéey bu bi ngay liggéey ci ci Sénégal jël bopp réew mi di Sénégal Idrissa Seck ci atum 2024 dafa fas yéene nekk président fii ci Sénégal tax na daa dinay convoqué képp koo xam ne dangaa bokk ci parti réew mi ëllëg ci aser gi yem ak juróom-ñetti fan ci weeru sulet moom mi di Idrissa Seck daa dinay convoqué képp koo xam ne ci biir parti réew mi nga nekk ngir ñu fas yéene defaraat seen utoogaay jekk-jekkalaat seen yëf ngir waajal li nga xam ne moom la ñu jëm ci kanam muy élection 2024 yi ñu dëgmal ki dëgmal kaso moom moo di Birame Souleye Diop Birame Souleye Diop daa dinañ koy defeere xam ne député la ci yeewi askan bi gannaaw bu waxee wax joo xam ne dafa xaabaabal yekk fi musiba ak mbelengaan kii président Macky tuumaal ko ba noppi itam tuumaal Alassane Ouattara loolee moo li tax ñu jàpp fat ko ci kaso bi jamono jile ña ngi ko defee rek ca kanamu parquet ba te boo wattuwul yaari ati kaso mën na ko faa fekk ak amande bu toll ci benn million ak cinq cent mille francs CFA biram su lay jóob ay mbiram boo mattuwul dana gàll guusee dana ñàkk postu a ba jàll Côte d'Ivoire waa Côte d'Ivoire ci seen jëmi bopp ni nga yëgloo ko di wax waa Sénégal ne leen seen waa jooju le wax ji mu wax jëme ko ci suñu njiitu réew mi le wax ji mu wax laal suñu institution bi le wax ji mu wax laal suñu kilifa gi na ngeen ko recadré waat na ngeen ko teg ci yoon na ngeen jëfandikoo yoon ci ki nga xam ci ki nga xam ne moom moo di Birame Souleye Diop mi wax wax ji ni mel ki yoon tegu ci kawam ba ñu naan dana bokkam du bokk moo di Ousmane Sonko am na kilifa gu génn daal di ne am na ku ma gis ci politiciens yi moom Cheikh As Barham borom ijaaba borom yàlla nañu yàlla may yàlla moom kott moom ñu fi dul vaar ci loo xam ne lu ko naqari la marabu yëpp ñoo fi waxoon ne troisième mandat président daf koy am te kenn waxu ci dëgg moom kott moom dong moo ci waxoon ne président du dem waaye bu président demul Sonko dafay dem moom Cheikh Asbar xam dëggalaat na ko nee na ma ki nga xam ne mooma di politicien boobee ñuy wax naan dana bokkam du bokk ñi ngi koy laam-laamee waaye man Cheikh Asbar xam ma wax leen ci lu leer nañ bis ni ki tey ni ma leen waxee woon ni leen Macky Sall bu demul Sonko dina dem bu Macky Sall demee na ngeen jàpp ne Sonko du dem kon nag Macky demul Sonko dina dem Cheikh Asbar patriote yi nee na leen dalal leen seenum xel te gis naa ko gis bu leer nañu Ousmane Sonko dana bokk ci élection yi ñu dëkk mal thank you